asalaamaaleykum euh, baa ñu ngi lay jàlle ki nga xamante ne mooy suñu papa Double Less bi fi jógee di ko jàlle senegal di ko jàlle axlu lamb euh, di wax toujours inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ba ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi ñu ngi ñaanal suñu papa Double Less yàlla na ko yàlla xare àjjana yal na saraxam yàgg seen njabootam euh, di ko jaale seen taaw malal mi nga xam ne moom mooy taaw maa ngay commencé si moom di ko jaale ñëpp di ko jaale Sénégal gépp di ko jaarale président de la république di ko jaarale ministre des sports di ko jaarale président CNG Birane di ko jaarale président des lutteurs Gris Bordeaux di ko jaarale président ancien gloire Manga 2 di ko jaarale sama rak sama xarit Omar Sakho euh, di ko ñaanal yéen gi yàlla na woyof ci kawam ndax euh, jàmbaar la taxaw na waajuram boo muy yóbbu ko ci kër gu mujj te loolu rek la waajur bëggoon ci njaboot te Omar taxaw na ko du keneen moo ma koy tax dama heure bu nu wooyee day daw mu taal otoom ñu daw dem fa toog fa des fois sa dimanche dañuy dem yenn foofu añee fa waxtaan ak moom kon mooy ku fonk waajur la kon yàlla na ko barke waajur wallu lépp lu mu dugg rek yàlla ko suñu borom leeral yàlla na suñu borom taas ko ci barkeem di ñaanal Omar yàlla na fi yàlla may gudd fan ay wér yàlla na ko yàlla may xolub muñ ndaxte ñàkk waajur dafa diis te waajur dafa am solo ci euh, doom kon ñu ngi jaale ko Sénégal gépp rek di ko jaale képp ki nga xam ne mbërum làmb nga xam ni ku mel ni Double Less champion du monde la def na lu ne Sénégal waxuma la làmb rek waaye dafa yëkkati drapeau Sénégal partout dans le monde kon ku mel noonu bu génnee tey danoo waroon wàccee drapeau yëpp tey ñoo si digg bi tey waroon Sénégal gépp fu drapeau ne dañ ko waroon wàccee ci digg bi xam ne un grand champion moo dem ki nga xam ne da doon siggil Sénégal partout dans le monde kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana ak mbooloo mi jul bi bi leen fi muy kenn ku àdduna suñu papa di Double Less waaye ñu fekk fi kenn ci njaboot ji boo xam ne eh, ni Double Less juree Balla Gaye 2 ñi la ko juree ndax eh, bari na ay couleur yu dox seen diggante muy Jules Baldé Jules ginnaaw bi ñu la nuyoo la masaw di la jàllinu ko bëggoon am ay kàddu seen diggante ak seen wéjur yi waaw sant yàlla jul sant bi sant ñaari waajur sant suñu sëñ Atta Mbacké yàlla na ñu yàgg te wér sant njaboot suñu waaw Double moom suñu papa la te ñun depuis nekkee booy waaw ñu nekk ak moom dafa yàgg te du tey boobu ñoom Balla Gaye sa juddu wuñu maanaam toog simmi kaayam sama si doon toog. waaw ñu gis ne am na colère gu bari gu dox seen diggante ca wéjuree la woon waaye lan moo la gën a marqué ca wéjur woowu. waaw mooy dafa dëggaloon dafa dëggaloon sama papa sama papa nijaay la si moom da ko dëggaloon waaw lu muy def lu ne dina waxtaan ñu waxtaan ak moom jox ko cër. waaw yan sa papa. waaw mooy li ma conseil moo doon conseil rek xale yi yaa fi des ñu suñu suñu waaye wéyu na yaa fi des xale yi neen topp sa ginnaaw rek loo leen diggal ñu def loo leen ter ñu bàyyi boo amoon leneen looy njaboot bi ci bàyyi ci wàllu njënkaane ñu gën a sàmm booloo doon benn lan lay doon waaw njaboot comme li paa bi wax rek nañu nañu wéyee loolu mag moo jiitu rek ñu des topp si lu mu leen diggal def lu mu leen tere ñu bàyyi loolu laa gis quoi loo koy ñaanal waaw yàlla na ko yàlla xëy àjjana fi daw si si barke borom Touba yal na ko yàlla xale àjjana waaw yal na ko àjjana. mbokk yi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ku ci mel ne tey suñu père du balees jóge na fi ñuy jooy père Mbaye Guèye noppeeguñu lii tiis bi ñu dalaat suñu kaw xanaa lu tey ba ban yëg nga ci am koy jàlle bu baax na. waaw leen koy jàlle ku ne mën ko jàlle sa morom ndax wax dëgg yàlla àdduna moom nii rek la demal maa ngi ñëw ndax wax dëgg yàlla euh, sunu papa la woon papa ju baax bëgg njaboot wax dëgg yàlla. koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana ndax àdduna moom nii rek demal maa ngi ñëw la rek barki dem moo njaay dañ wax dañ doon jooy père Duba euh, père euh, père euh, Mbaye te noppee gunu tey ji gis nga lii dalaat suñu kaw kon nag sant yàlla rek waaw àdduna moom li ci am solo moom bokk ndey ak baay yéenante jàmm xam ne loo gis dafay jeex ana sunu papa yi tey dem nanu ñun ñu fi des nan ko rafetal àdduna amul solo fii loo fi gis dafay jeex waaw ku ne mun na ko jàll sa morom ndax euh, per Double Less teewal na fu ne Sénégal ah na fu ne Sénégal raaye bu ne indi na ko fi kon nag tey su luy amee ku ne mun na ko jàll sa bopp voilà kon nag ñoo ngi koy jaale suñu rakk ji Balla Gaye 2 di ko jaale saa kees di ko jaale xale yi ñoom ñëpp vraiment di ko jaale yaay ji yaay Sadio ah, ñoo leen koy jaale yéen ñëpp yéen tam presse bi ñoo leen koy jaale ndax ku ne mun na ko jaale sa bopp man sax maa ngi koy jaale sama bopp ndax sunu papa la ñun ñëpp sunu papa la ñàkkee dafa mel ni man maa ñàkk su Balla Gaye dafa mel ni man maa ñàkk kon nag ñoo leen koy jaale yéen ñëpp di ko jaale sunu bopp di ko jaale axlu làmb bépp ndax Père Double Less teewal na fu ne Sénégal te képp ku nekk ci làmb démb làmb démb ak làmb tey soo gisee photo Père Double Less gis nga ay jaloorem di ko bëgg ndax liggéey na ko senegal at Père Mbaye Guèye at sunu papa yi nekkoon ñun nag ñoo ngi ñaan. yàlla na yàlla suturaal te musan ju cat at làmmiñ te da àggale suñu sago yàlla na dëddoo Balla Gaye jàmm yàlla na ko dënnoo jàmm waaw te Balla Gaye tam ñoo ngi koy ñaanal yàlla may ko xolu muñ xolu muñ ak ñoom saa kees xale yi ñoom ñëpp ñoo leen di ñaanal yàlla may leen xolu muñ ndax wax dëgg yàlla daal ñàkk nanu daal ñàkk nan ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk nan icône icône lan ñàkk icône ndax ndaanaan la lu na liggéeyal na ko Sénégal yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaw ñoo ngi ñaanal waa Géejawaay yëpp di jaale ñëpp képp nekk Géejawaay ñoo ngi lay jaale sunu papa Double Less at ak lu làmb sax laay wax at Sénégal gépp ba ci président Macky Sall fii ñëpp fi war a teew ba ci président tout ndax paa liggéey na ko fi liggéey na ko ci nu réew waaw ñoo ngi koy ñaan nag yàlla na ko yàlla xaare àjjana yéen nag tamit jërë ngeen jëf ñoo leen koy jaale ñi ku nekk mën na ko jaale sa morom daal yàlla na ko yàlla xaare ndax sunu papa la woon wax dëgg yàlla nekk njàmbaar na nekk bañkat nekk jàmbaar nekk gaynde voilà yàlla waaw li ma la mën a wax si moom mooy moom ku fonkoon lii la lii lii nit ñi ñëwal ko tey moom daan ko xam lu quoi muy dëj man bi ma koy njëkk a gis euh, mago ama bu gaañu woon Papa Balde moo gaañu woon mu ñëw si dëj moo fa njëkk moo fa mujj xam moom tey bu fi jugee yoon la ñëpp ku nekk loo jàpp nga bàyyi ko ñëw teewal ko ci bisam bi di ko ñaanal yàlla fi mu jëm gënal ko fi mu jugee yàlla xaare ko àjjana sàmmal ko ay jabootam parce que àdduna moom lii rek moo fi nekk àdduna amul solo. nga xam ne waaw dara dul bokk nday bokk bàyyi xam ne làmb moom du dara du dul benn fan la day jeex du dara man làmb waaw ku koy jàpp di ko eggal fenn fi sax man nag may jaaxal parce que làmb dee moo ko doole te fii ku dee nit ñi dem pourquoi pas bu ñu nekk si jàmm deewaguñu ñu seex jàmm bëggante xam nga parce que làmb nekk na loo xamante ne ni benn fan la loo xamante ni da koy tëgg mu nekk un an nga tëgg ko un an ci kanam un an boobu ñëw ci kanam du def deux de temps du def une heure mën naa am soo du def quinze minutes mën naa am soo du def cinq minutes ñaari adversaires yi kon loolu jarul muy ñaaw jarul mu xam loo xamante ni day indi ay noonoo wala ay xiiroo ŋaayoo ki fi jóge daal ñu ngi koy ñaanal di ko ñaanal di ñaanal njabootam yàlla bu ñu bu mu gis dara lu mu ragal yàlla ko yàlla xaare àjjana yu gën a kawe si àjjana yi yàlla na ko yàlla jéggal jéggal mbooloo mi jullit sama teewaay tey nag maa ngi koy teew ci waa Pikine yëpp ku ñëwul ñëwal naa la ndax xama famille làmb lépp benn la lépp benn la duubales papa duubales nekkoon nit ku baax di ñëwal ni ñi di conseiller doomam di conseiller doomu jàmbur yàlla na ko yàlla xaare àjjana xaare ko mbooloo mu jullit kon alaaji fa ñu ñëwaat foofu. Mhm. kon il est temps làmb ñu bokk ndey bokk baay yéenante jàmm gis nga këru dëgg moom. Mhm. mooy mujj ko fa àddinay tukki nit dafa war a rafetal. Mhm. pour ëllëg. am na daal làmb ñu si nekk ñu rafetal li si des. waaw foofu il faut gars yi insister fa. mooy li nga wax ni il faut gars fa di ci wax bu baax parce que àdduna amul solo. àdduna amul solo gars yi dañuy coow yi ñuy coow ak violence bi ñuy def euh, eggul fen eggul fenn gars yi tey ji mbër bi nga xam ne moo dëkk parcelle wala mbër bi nga xamante ni moo dëkk Diamaguène wala Kër Massar wala fenn mbër bi dëkk Pikine bu ko dara jalee mbër yooyu bu ko dara jotee mbër yooyu ñoo fay njëkk mm-hmm. kon xam nga pourquoi pas bu fekkee ñu ngi ci jàmm nekk ci famille làmb ñu jàppee affaire yi kon adversaire adversaire pour daan ñu xam ne kii daan u weesoo ñu dug séq jàmm bokk ndey bokk bàyyi te xam ne àdduna moom du dara moom du dara